francs waral muy sàkku ci directeur bu caisse de dépôt ak consignation ci mu tekki bi leen ndombal tànk. dafa nekk directeur u caisse de dépôt et de consignation te loolu caution candidat yi ci moom lañ koy yóbbu moom mooy décerner quitus bi mënoo nekk juge et partie ndax bu la neexee ni Cheikh Bamba Fall baaxul du bokk bu la kenn xamul sa chèque tamit noo ko dugalee fekk ñu fi kon moom tey dafa war a génn ci processus électoral daa war a démissionner mënoo nekk juge et partie y a un conflit ñun wax ñu changé candidat bi moom la ñu soxla. mais na bàyyi moyen d'état bi démissionné comme na ma ko waxee woon ñu ñu jàkkaarloo ñu ngeen ñu fëtti ko en deux minutes. maire bu Médina mi ngi yëkkati yile kàddu ci bi muy séddale ay fournitures scolaires yoo xam ne xayma nañ ko ci juróom-ñeenti millions suñuy koppar jagleel ko élèves yi yeewoo ci Médina. Euh, yow jàpp nga ni le fait que muy toog foofee ca CDC dafay am enjeu ci euh, dépôt yi war a lii la ma bëggoon wax sànq yéen mën ngeen nangu. ñu nekk fii ñun banalement rek fii ñu ne acca ñu ñu li ñu lido wala ñu scrabble wala ñu monopoly mais yow mii nga xam ne dangaa bëgg gañe yow yaay arbitré loolu fu mu am fii rek la am lépp loo xam ni dafa dafa dafa dafa lalu ci compétition. ci élection arbitrage am na fa lii nga war a joxe fii nga koy joxe dem joxe ji ko fa. mais man mi nga xam ni je suis candidat à ça. Mhm. man maa war a recevoir seen ay. candidature au niveau financier luy reconnaître que yéen bokk ngeen man maa ko mais léegi man yow boo ñëwee indi ma ne non attention y a un problème quelque part luy xew même bu jaaree yoon même bu jaaree yoon c'est suspect donc li gën mooy li mu wax dafa war démissionner encore que comme il dit bu fekkee waxoon na ko euh, respect de la parole donnée. ndax ndax war na démissionner. waaw euh, damay jàpp ni Cheikh Ahmed Tidiane Ba na si li nga mhm. xam naa ne am na benn Kalidou Koulibaly boo xam ne moo yor mairie ba <laughs> mu di Bamba xam naa ne kon boog euh, match bi du yomb. Mhm. même juge et partie boo ko tuddee kon juge et partie yi bëri nañu. Mhm. et par nga xam ne mooy l' organisation. liée à l' administration justement nii moom il est et partie. mais xam nga dépôt de kese la fa waaye tey ji kii organiser élection yi mooy moo di kan mooy c'est le ministre de l'intérieur bul fàttali Pape Assane 2014 kan moo nekkoon ministre de l'intérieur 2017 kan moo nekkoon ministre de l'intérieur naa ne si diggante bi Abdoulaye Daouda Diallo il a été élu même moment bu muy nekk li nga xam ne moo di ministre de l'intérieur Aliou Ngouille Ndiaye il a été élu également euh, tey nekk na li nga xam ne moo di kii organiser élection yi tey jii nii Félix Antoine Diome def naa ni dugg na si cappaandawu politique bi Euh, xamuñu ndax waaw non dama moom laa lay wax noonu dama ne kon boog juge parti bari na dëgg la naam xëy na mun nañu xool nuñ ko réorganiser parce que dut nañu baaram ay taskati xibaar par rapport ak li nga xam ne moo di éthique et déontologie bu ñu sooboo si li nga xam ne moo di campagne bi mais def naa ni décision yooyu yëpp tamit warul yem rek si ki nga xam ne moo di taskatu xibaar bari na ñoo xam ne effectivement ñi ngi liggéey si ay corps de yoo xam ne xaw na sensible te dafa laaj engagement déontologique ak et sur le plan euh, moral ba nga xam ne war nañu mën a xool itam jamonoy campagne ñooñu itam seen liggéey naka lañ ko war a mën a mettre en sus en suspens ba nga xam ni jàll nañu si élection mais Ablaye lijjanti ñi ngànk mbir mi mais mais mais xam nga nga dépôt de caution aw ah, ah, n'a rien à voir ak li nga ah, xam ne moo di dépôt de candidature te loolu kan moo ko yore mooy kii nga xam ni mooy ministre de l'intérieur parce que moo ko affilié Alaaji bon euh, foog naa pas foog naa ni du am problème Cheikh ba nekk ci mhm. caisse de dépôt et des consignations mhm. problème bi mooy mhm. daraja ji ñu ko jox ak doole ji ñu ko jox àll bu bëri ndég bi ñu ko tëmbal foofu la wax ji nekk. Mhm. est-ce que dina jox ki ko teg fi mu ko teg li mu ko laaj ci médina mhm. parce que am Ablaye boo ju ñu ne ko sànq. ba mu faal ba ma faal ni wota song daan Medina benn. Mhm. ñaareel bi ci foo ñu wax ci frustration apéristes yi nekk Medina. parce que ñooñu Seydou Gueye ñooñu Seydou Gueye. mënuñu digérer le fait ñu jël Cheikh Ba def ko tête de liste ci coalition benn bokk yaakaar est-ce que vote sanction dafay am est-ce que frustration dafay am mais dinaa rejoindre tuuti Pape Assane. dafa am benn école bu nekk ci boo rombee post Médina di dem RTS. boo ñëwee ba romb RTS. nga jàdd mel ni luy remonté tuuti jëm Petersen. Mhm. am na benn école bu nekk foofu ñu koy wax euh, benn école boo xam ni euh, ci commune bu Dakar Plateau la bokk mais waa Médina ñoo fay voté. Mhm. alors ñu ni Médina am na ay écoles yu des ay sale de classe yu des yu ñu mën a def ay bureau pourquoi ñu toxal benn bureau de vote Médina di ko yóbbu ci commune bu Dakar Plateau Bamba Fall jooy na ko jooytuwaat na ko jooytu na ba léegi amagul réponse favorable buy wane ni bureau de vote yi nekk foofu ci école boobu toxale nañu ko foofu delloosi ko Médina mais Alaaji situation yu mel